Les choses ne se font pas au hasard. Les choses se font pas. Il faut observer quelque chose, je vous dis. Quand j'ai dit à Dieu qu'il n'a qu'à m'ouvrir les puisse mémoriser le Saint-Coran, et que j'ai contacté directement le colonel, il m'a dit que de se préparer, on va aller. Pourquoi cela Je vous dis pourquoi. Le, ma, première fois, j'ai fait quelques jours à Touba ici, Ça me suffit de leçons, ça me suffit de découvrir la vérité, ça me suffit de voir effectivement la vraie face de ce qu'on l'islam. Ça suffit largement. Quand je suis arrivé au Burkina Faso, je n'ai pas mâché effectivement mes mots. En que je vous dis que c'est une garantie. Je vous redis, encore que c'est une garantie. Et je dire quelque chose que l'échec Ahmadou Bamba a demandé au niveau de ses œuvres. Son combat, je vous ai dit que c'est le savoir. Il y combien d'ans, que les, les Maurites au Burkina Faso Il y combien d'ans qu'ils sont au Burkina Faso Il y combien d'ans que vous êtes là au niveau de Touba rendu le mouridisme partout dans le monde entier. C'est une, une, grande faute qui parvient de vous, les mourides de Touba. Et vous êtes condamnés. ñi nga xam ne dañoo wax ne murit lañu mooy ñaata at a ngi nii murit yi na ngi nii murit yi nekk fii ci Touba te foofu dafa mel ne defuñu benn liggéey ngir yaatal li nga xam ne mooy ndono li nga xam ne nàmp nañ ko ci Serigne Touba te nga xam ne kenn kenn kenn mënu koo ñàkk kon nee na ci loolu mel na ne yeddal nga gu wér war naa bàyyi koo ci moom jëm ci ñi nga xam ne ñoom la ñu wax murit lañ. Moi j'ai pris un engagement avec le Seigneur du Cheikh Ahmadou Bamba je vous dis que j'ai pris un engagement avec le Seigneur di Cheikh Ahmadou Bamba celui qui l'a envoyé au niveau de toute l'humanité entière j'ai fait quelques jours ici J'ai vu la vérité. Vous, les gens de Touba, je pense que vous ne transmettez pas le message du chèque. J'ai pris un engagement avec Allah subhanahu wa J'ai fait sortir mes deux fils de l'école française pour mettre entre les mains du chèque Ahmadou Bamba, pour que ces enfants mémorisent le Saint-Coran, apprendre les messages à prendre les enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba pour venir transmettre au Burkina Faso vous allez venir voir. nee na de engagement la jël digganteem ak boromam ci liggéey bi nga xam ne dogu na ci mu def ko mooy yaatal li nga xam ne mooy euh, jàngale bi mu war a jàngale nit ñi gën a xam sëriñ bi ndax nee na yéen murit yi kat wóor na ne liggéey bi ñu war a def ngir liggéey ñu xam sëriñ bi li nga xam ne moom lay jàngale yaatu nee na liggéey boobu mel na ne defuñu ko nee li ciy firnde mooy. andi na ñaari doomam yoo xam ne dañ doon jàng ci école français mooy gone yi toog fii nee na daf leen a génne ngir andi leen fii ñu ndàmp ndoomam mun cee tàmbali liggéey boobu nga xam ne wax na ko. Et je vais vous dire que si ces deux enfants, si ces deux enfants ne réussissent pas, si ces deux enfants ne réussissent pas, hein, فما بلغتم Si ces deux enfants, vous n'avez pas transmis le message du Cheikh Ahmadou Bamba et vous ne serez pas avec lui au de la résurrection. waaw nee na li nga xam ne wax na ko mooy gone yi nga xam ne ànd na ko fi la mu ci séenu bu ci amut muy ñu mokkal alxuraan nàmp ndono lii nga xam ne moom lu sëriñ bi di jàngale nee na nañu na leen wóor ne liggéey bi nga xam ne séenu nañ ko ci yéen defuñu ko. Je n'ai pas vu de l'argent ici pour faire venir mes enfants. Je n'ai pas vu, par exemple, quelque chose pour faire venir mes enfants, mais j'ai vu effectivement la vérité, le vrai, la vraie face de l'islam. L'islam, l'islam réel, authentique, que le saint prophète a, a, a transmis. C'est ça que j'ai vu. Cause pourquoi j'amène mes enfants. waaw nee fii bi li tax mu yëkkati gone yi leen fii nee na xaalis la fi gis du alal la fi gis waaye dëkk la fi gis l'islam joo xam ne ju wow koŋ nga xam ne moom la doon xeeñtu loolu la fi gis moo tax mu andi gone yi tàbbal leen fii ngir li nga xam ne moo la war ne nàmp ñu nàmp ko vous croyez que c'est pour zéro que le colonel euh, Dieu l'a choisi de venir voir la vérité de venir attester vivre la réalité la vraie face de l'islam vous croyez que c'est pour zéro que le colonel est là mu nekk defe ngeen ne colonel bii mu àndal defe ngeen ne dikk gi mu dikk fii ngir ñëw teg bëtam ci li nga xam ne mooy dëgg gi nee na defe ngeen ne loolu mën naa neen nee na loolu neen mukk nee suñu borom a ko tànn ngir mu ñëw firndeel lii gën a tegaat bëtam ci li nga xam ne moom la gis moom. Et je vais vous dire quelque chose à toi ici vous construisez beaucoup de mosquées. nee na beaucoup de mosquées. nee na fii de seetlu na ne li ñu fiy tabax ci ay jàkka ak i jumaa bari na lool. Qu'est-ce qui vous empêche de construire des mosquées partout dans le monde entier à travers les différents pays mm. Pourquoi cela Est-ce que le chef a fait comme ça S'il avait fait comme ça, s'il avait fait comme ça, je n'allais pas le découvrir en Amérique avant de venir ici. nee na loolu liggéey boobu nga xam ñu ngi koy def Touba mu fees dell ak ci jàkkaa ki juma nee na lu tax ñu koy yemale fii ci Touba lan moo tere ñu dem ci bépp dënd suuf ci ci kaw suuf si tabax fa ay jàkk def fa liggéey boobu nee na bu sëriñ bi defoon noonu nee na sëriñ bi de du yoon wow la xàll nee na bu defoon noonu kon moom du dem ba Amérique door faa xamee sëñ Touba. On va citer le colonel qui est La mission que Dieu l'a fait venir ici-là. Lui-même, il n'est pas au courant. Dieu est témoin, il n'est pas au courant. Mais je vais vous dire ça et lui, il va profiter, écouter. Pourquoi cela? Je sais au Burkina Faso, vous êtes là en de louer des coins chaque fois pour faire par exemple des daras. Chaque fois vous vous regroupez, vous chantez les géloges. Si le chef Ahmadou Bamba était un chanteur de loge comme ça, son message n'allait pas être partout dans, dans Je vais vous dire quelque je vous le jure, et je vous le rejure. S'il n'acceptait pas mes paroles, parce que je suis son maître, il n'allait pas me dire de se préparer, on va venir à Touba. De ce fait, vous êtes témoin, vous êtes témoin, Dieu est témoin. Le cher Ahmed Bamba, paix à son âme présentement, il est couché dans sa mosquée. Il est témoin. Si vous venez au Burkina Faso, si nous arrivons, je vais lui dire de vous réserver n'importe quelle superficie d'un terrain que vous voulez. Vous allez construire une mosquée. Mais j'aimerais que vous dénommez cette mosquée la mosquée du chéri Saliou Mbaki. Parce que je suis sûr et certain que si vous implantez une mosquée au nom du Cheikh Ahmed euh, Baké, au niveau du Burkina Faso, grâce à son nom, hein, le Burkina Faso n'aura plus faim. Le Burkina Faso va continuer à régner dans la paix, dans la paix, dans la paix. C'est ça justement qui nous préoccupe. su ñu taxawalee Burkina Faso jumaa joo xamante ni sëriñ bi tax ñu def ko fa nee na turu sëriñ bi rek mën naa aar réew ma ba bekkoor du fa am du fa am nee wóor na ko. mais faites tout pour que la mosquée soit construite une très belle mosquée c'est comme ça pour montrer pour que les œuvres les enseignements du grand cheikh Ahmadou Bamba puissent être propagés partout dans le monde entier, plus précisément au Burkina Faso. Et la lutte continue. Si je regarde par exemple la grande mosquée qui est construite ici, qui est en construction plus tôt, moi je ne suis pas d'accord. Le chef Atou m'a montré, me l'a montré effectivement en Amérique. Mais je n'ai pas cru. Je suis venu, j'ai vu la mosquée. Mais moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi cette mosquée n'est pas construite au Burkina Faso au nom des Mourides